que foo ko takku rek weestu na ko moom mi nga xam moo di Ousmane ginnaaw grève de la faim bi nga xam si nag moom la nekkee daal instant bi nag grève de la faim boobu nag moo ñi fi nga xam moo di dans le coma ba pare nekk fi nga xam moo di réanimation de instant bi nag sonn na trop trop trop trop nag mooy l'heure est grave moom ñi nga xam si ne moo di Pape Alé Niang loolu la yëkkati te xam le nag ne ki moo di Maître Ciré Clédor Ly moo ñu axtu nag état bu Sénégal bu leen